yàlla bi xale جبريل ثم بميكائيل يمار وساهم النفخ إسرافيل خادم أرواح الخلائق عزرائيل يمار وبالصحابة ثم الأولياء معا الأخبار اليمام وبالصديق وبالفاروق ثم بزي نورين ثم أبي ستين يمام بمالك ci li mu nekk. yaakaar naa ne gis-gisu Touba dana ah, wuute. waaw ah, waaw gën a xam ne. mooy bëgg-bëggu seen Touba ci loolu mooy am solo. danaa li war nag kon mooy. Eh, kenn ku ne jéemoo a wane bëggu seen Touba mooy ci Touba. ku ne xam na jàngale la ko seen ah. Touba sosé jàngale la ko sosé mm-hmm. waaw xam ne li ko fi am yëpp mooy loolu mm-hmm. kon nag eh, ku ci nekk. nekk nga ci la nga war ku ci nekkul itam yaa nekk ci la nga nekk. ku fi nekk ku nekk ci bëgg-bëgg sëñ Tuubaa nga war a nekk. am nag waaw wax nga jërëjëf. jërëjëf baax ñoo ngi leen di sant bu baax yoon ne. yéen a koy taxawal ko waxee. bu ak yéen itam lu ak seen itam ah, yéen rek la ci am. waaw ak nga xam ne ñooy jàngale ñooy wër. ñoo ca nekk ñoom gone yi. ñooy dem école fu ñuy jàngale loolu mooy ci ñooy waral fu mu àgg rek ñoo ko war àggale kon nag euh, naka jekk it mu di ma leen wax naka jekk muy séeréel ak cantam ci yéen séeréel kon nag sunu maa ñu jàtt jot leen cantam boobu waaye ñu leen sant si suñu bopp waaw ah, waaw di leen gën a dénk rek ngeen taxawlu na ko taxawu ko ci liggéey te xam na itam li ma wax léegi yéen da ngeen nekk ci li ngeen war a nekk. kon ku ne naka njëkk itam. xamal ko ne nit mën naa mën naa mën naa nekk ci activité. muy la nga xam ne la la war a nekk te la ca war lépp itam yàlla def na ko ci. waaw nag loolu mooy li am solo. nag eh, yàlla leen ci yàlla jëf. amiin yàlla yàlla def ko eh, ne itam. amiin amiin eh, jàng mi ñuy def ci ñoom itam mu barkeel. amiin. Eh, yàlla musal leen. musal leen fii. Eh, ubbi seen i xel. ba li ñuy def ci ñoom yar beeg yëpp yàlla continué ko. ci ñoom góor ñi mu jigéen ñi. amiin eh, ba kenn ku ne fa nga nekk ëllëg yi si biir. Mhm. ngay xalaat ne ba may tàmbali jàng kenn. fii laa nekkoon. Mhm. ba ñuy dem ba ci yónnee seen i mhm. <coughs> mën naa nekk. amiin yàlla def ko. xam ne lu metti metti ab jaar jaar la. te loola itam mooy tax ëllëg ngeen gën a mën a yor taxawu seen bopp ci la ca war lépp muy xam ngi àdduna xam sa boroom xam sa diine xam la ca war lépp loolu rek lañ bëgg ci yéen seeni waajur yi leen fi indi itam loolu rek ngir bëgg bëgg ngeen di ay jullit dëgg mooy ku xam eh, xam boppam xam diineem ndax boo xamee sa diine rek xam sa bopp xam itam na ngay defee ëllëg ci àdduna si àdduna si dafa laaj xam ku ci nekk te xamoo itam da nga dem ba xam ne xam mënutoon a ñàkk. kon nag bu leen seeni waajur andee fii leen jàngaloo na ngeen ci nekk tey te xam ne da ngeen dem ba sant seen waajur yooyee. ak lu metti metti jàng moom noppaliwul fenn kon nag eh, waaye ngeen xam ne loolu rek ngeen mën a def fii ñu tollu lu leen amal njëriñ. te mooy li leen di amal njëriñ ëllëg. loolu rek a ci am kon nag. Eh, nii itam yàlla yàlla def lépp jeex ak jàmm la nga xam ne moom la seeni waajur bëgg ci yéen ci yar baak xam nga yépp yàlla defal leen ko ba léegi li ma wax léegi ngeen tasaaroo ëllëg yi sibir biir yor seen i liggéey yor seeni kër yor si góor ñeeg jigéen ñi bay xalaat indiwaat fi seen i doom loolu jàng mi rek koy waral bu bu bu ngeen ëllëg yi si biir bu ngeen estimé na njàng mi Euh, taxutoon mu am njëriñ itam du ngeen ko def kon nag yàlla yàlla na ngeen ko yàlla njàng mi barkeel lool ba ëllëg si biir euh, ngeen xalaat ne loolu suñ njaboot gi war nañ leen di jaarale ci yar bi nga xam ne jaar nañ ko ëllëg si yàlla defal leen ñoom itam kon nag jëlal naa yéen yàlla taxawul leen may leen fanu gudd may leen man ak gale njàng mi barkeel ko waaye même seenu njaboot yal na la yàlla jox njaboot barkeel ëllëg si biir ba lépp ngeen man koo la ngeen ca yéene woon li seen i waajur yéene ci yéen ban leen fii yéene ngeen am yéene jooju seen njaboot ëllëg jërë ngeen jëf waaw leen kumba ngeen góorgóorlu bu baax dégg ngeen lépp nag dafa laaj muñ waaw adduna lépp dafa laaj muñ rawat nag gone xañ nag nekkoon ci kii bi di moo leen moo moo ci gis-gis waaye lii am njariñ te mooy li am solo moo leen di wane nu ngeen mel ëllëg yàlla na ko yàlla àggale waaw leen kumba ah, kay amiin yaa rabbal aalamiin amiin الإحسان إليك معا man kon nag da ngeen continuer di gën a man rek nag da ngeen ci gën a góorgóorlu ba daal góor ñi duñ leen man ci lenn ndax yéen a war a man jigéen ñoo war a man waxtu bu ne góor ndax loolu yàllaa ko def ci yéen kon nag da ngeen ci góorgóorlu baax a baax ñu jàngal ay addis ñu jàngal saar yu njëkk yi. commencement waaw. li ëpp ci seen li kii nag ci yëngula ci ci def seen loxo. waaw waaw waaw waaw waaw. waaw li am solo nuyoo tàggoo ci biir waaw waaw waaw ah, ah, ah. yar lay doon tey lay doon. initié initiation la daal initiation la initiation bi. day lu am solo ndax. jël naa ci initiation ci jëm ci xam gi. Mhm. waaye ñu tuddee socialisation itam da ci am. mooy gën leen a mhm. boole. ñu xam ne ci société lañuy ñuy dund. ci milieu beneen bu butt seen kër la ñuy dund. ëllëg si biir noonu lay demee. Mm-hmm. kon nag alhamdulilah loolu itam loolu sant yàlla rek. kon nag yéen itam nga ngeen gën leen a taxawoo. ni ngeen leen def rek. maa ngi leen di ñaan ngeen gën koo yokk ci yar bi ci taxaw bi. Mm-hmm. waaw kay jërëjëf jëf kay waaw kay. maa gëm-gëm itam la wane fii rek. waaw waaw waaw waaw. ndax. ko xam mm, mm, mm, xam naa ne jaar na ci ay ah, ah, ah, jafe-jafe yu bare bare. waaye loolu yëpp gëm gi ko gëm. waaw euh, bëgg lu baax de xam ne lii lu baax la. xam naa ni mooy lu baax. moo tax mu mën a muñ lépp. moo tax mu jaral ko sacrifice lu bare bare bare yëpp ñu ko xam yëpp xam ngeen ko loolu. waaw ah, waaw kon nag incha allah léegi day day jëm kanam rek mooy ba seen xel daal ah, waaw waaw ba seen xel daal ci gën a jëm kanam rek ci nam gënee ah, waaw buñ ci fayee ñi nga xam ne ñoo fi yëngu daanaka waaw nga xam ne kon yë yeneen yëpp ñëw incha allah dana ñëw dana ñëw ndax naka njëkk loolu laa koy waxee boo nekkee ci li ngay nekk mm-hmm. moom yàlla yi taxaw la ci la ci wax waaw te dund ca la nga xam ne moom nga moom mooy lu baax mooy li am njëriñ wax ci la yàlla barke te loolu rek am solo waaw waaw kon nag yéen itam bay ba ngeen xam ne xaj na tàmbali tàmbali te lu mën def euh, jafe yàlla Xalil وزكريا يحيى ويمنام هارون يوسف إلياس وآدم دا وداوس الكفل عيسى تيمنام ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء بهم جبريل ثم بميكائيل يمار وساهم النفخ إسرافيل خادم أرواح الخلائق عزرائيل يمار وبالصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأخبار بالصديق وبالفاروق ثم بزي نورين ثم أبي ستين يا الله بما والسهب والأزواج يا الله وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالفين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا وكن لنا جنا وشيطان يا الله وكمل العلماء ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سهم وذي هرم ويسرا كل ذي تعصي يا الله نور لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل دائم تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله ولا